man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man nay métti rek ful ak fayda jom dem ñibbi dafa am lu ma tàmbal gaay te sama bët bi laa am fu ma ko teg. ndax soxla ma wax ju bëri dama si bugg jëf ju bëri. waaw hmm. nga sakkanal say batterie. man duma ko ñuy appal ay temps. man duma ko naan ay une minute ak yaakaar naa ne yow sunu combat bar bi siflet dañuy daje parce que ni ma gisee ngay wax nii. doo dellu ginnaaw. non loolu moom bu am jàmbaar. waaw kay loo ci hésité wala du ma la arrière am. moom wax signature. bu arbitre sifflé def naa ko. 30 secondes nga wax. laa wax. bu la neexee ngeen xaar. yow wàcc nga bu yàgg nii dama koy bëri yow. xam lu ma bëgg dama bëgg nga ne ma dama lay woo digg ñàngatang mooy nga yokku gaz bi. Eh, man si digg ñàngatang laa gaz boo boo yokkul gaz bi baalu ma la. barki Seydina Mohamed. sa dawal ma yor rek xëy sa dama lay assommé. Ah, xam li muy lekk xam li mi naan. ba pare mm. bëgg entraînement. amul soo ko gisee ñi mu bokk la ñoom lamb yëpp ay Ousa. Mbaye Diouf Ousmane Diop. Ah. ba tey soo xool mm-hmm. ah. la. Mm. solo. te jàmbar la boo xamante ni der la ndaanaan la mën na bëri mën na xeex ba pare jàmbar fax tëdd la. Mm-hmm. waaye ki muy bëri muy sàkkees. waaw xamewuñu jàng ak joor parce que su arbitre sifflé ba mu yëkkati nit ñi xeex bi ak song bi ñooy ànd. xeex bi ak song bi ñooy ànd waaw parce que euh, Balla Gaye Sa Thiès Ama Baldé seen vitesse ku leen mënul bari doon def gëdd googu ñuy gëdd. gëdd parce que Balla ak Sa Thiès ñoo yem dañ lay gëdd gëdd beeg soog bu ñuy tax muy am sens ci mooy man su ma ko doon digal saa yi ko sensé gëdd yi na bëri ni mu bëri Balla na replié wu mooy ñu xam nga Balla day gëdd Eumeu. waaw Eumeu reculé su ñëw dur ko jox joxe uh-huh. ko foo ko bëgg. Eumeu combat bi la su ko Sa Thiès gëdd bi mu taxaw fixe. mu def retrait retrait waaw bu pare su defee retrait day fausser li Sa Thiès def. retrait un pas deux, deux pas wala trois pas. deux pas comme ni pas rek parce que ëmb saa yu ko Balla gëdd da nga gis mu reculé. Mhm. su Balla daw ji ko sox mu dul ko tëf tëf tëf. Mhm. Balla daw gars yi mu doon sox ko jàpp ko ba pare xañ ko may jàpp. bëri si koom. Sa Thiès ëmb seen seen bëri da mu neex mooy ay mbiru loxo lañ duñ mën a ngemb. ci ay loxo la ñuy bëri. loxo ay loxo la ñuy bëri dañuy weccoo waaw dañuy weccoo moo tax bëri pire dina fa am dina am xeex dina am bëri parce que ñoom ñaar dañuy law dañuy laaw dañuy laaw te bëri bi bëri pire duñ ko fa gis ñoom parce que ñaari jàmbari fa te gis naa seen état wax dëgg yàlla pare mhm. Mhm. te Sa Thiès jàpp nga ni ku taxaw ci kanam moo la mën mais ñi nekk benn parce que Eumeu Sène champion nekk am na ko mais Eumeu a bu gën a gaawee ah. a gaaw ci làmb ci hmm. waaye nag Eumeu hmm. na yàq sa làmb ah. daal li ma koy digal mooy su arbitre sifflé ah. jox cër Eumeu mais bu cër bi ëpp Mhm. waaw ci arbitre bi nag def li muy def mais xam naa bis bu yëkkati nit ñi mhm. ba léetoo moo ëmb seen jege mhm. pied droit yi jege su arbitre bi lay de lay am mais ci euh, ci non day mais mën ci yow te hmm. waaye nag li doon def bu mu ko bàyyi

bañ a jox cër Eumeu Sène ah. waaw na ko jox cër ah. te xam ne bu nekk bi ne ko teg ji fële ah. nekk la moo mën a ñàkkloo Eumeu Sène si combat bi Eumeu li a jël ay mhm. mhm. may wax si jur ku ne ne maa nekk bàyyi bi di mas mën naa ñëw gaaw loolu mën naa ñëw yéex loolu mais da ngay préparer lépp mais ñoom mhm. a dégg ci loxo moo tax mu nit ki ne kenn si daan jub si morom jël bu parce que kenn dugg ci yoon bi day dóor deuxième bi day hmm? mot un grand ah spécialiste de la Thiès day filé xam nga dafa Thiès mi bëri moo ma jaxal uh-huh. wax si lay filé te mu kenn dugg ci yoon bi uh-huh. moom ñaari tànk lay uh-huh. daa mun ci bii bor mun ci bee bor mais Eumeu Sène daa daan Balla Gaye ñaari yoon ñaari yoon est-ce que Balla ak Sa Thiès benn la non bokkuñu lu tax bokkuñu Sa Thiès moo gën a rabe Balla moo gën a rabe moo gën a rabe wax moo gën a rabi moo gën a gaaw <laughs> ah, ah. waaw sa bëri moo gën nekk xale dëgg la te Eumeu Sène si carrière am yëpp ñëpp mës a moo ngi a mag moo mag Balla moo mag Lac de Guiers moo ngi soog a may xale sens Sa Thiès tamit moo ngi soog a dugg ci la cour des grands mm. te su daanee Eumeu Sène mën na bëri droit des arènes te Sa Thiès soo ko gisee ni mu toll macha ak ni muy entraîné nga xam ni kii yàlla mu yàlla jëgal kii du sonn der la dër la combat bu piège ah, ba rek combat piège la. combat piège la combat piège la parce que Balla ma dafa dugg kër gi daan fa Balla ñaari yoon. daan la diggante ma dugg kon Sa Thiès day fourni. dëgg mu neex ko ak mu bañ ko neex Sa si ñaari ndam daan Reug Reug. Mhm. daan Moussa Ndoye. kon su daan di ëmmat seen mën na bëri sax roi des arènes. dëgg la parce que mérité na ko mhm. mhm. bi du weesu cinq minutes. waaw xeex lay tàmbali waaye ci bëri lay jeex. Moussa Diallo waaw xam nga dafa doy waar uh-huh. ndax li tax mu doy waar uh-huh. mooy boo dégloo grand ousa wax uh-huh. après yow da ngay da xam ni en fait lenn lu nekk am na spécialité dëgg la lenn lu ne am na spécialité gis nga tey mun na la ci jox exemple yu dul jeex du xaaj mais maanu teem moo tax mu ni la loo ci mën a wax rek bàyyil ba dimanche bàyyil ba dimanche dëgg la te dafa am ñaari génération yoo xam ne dañuy daje dafay am mag mi am ah. xale bi. xale bi bu ñëwee fugg lay indi. Mhm. mais mag mi na dem ak expérience. Mhm. te tamit li grand Ouza wax léegi dangay seetlu combat ëmm yu mujj yi. Mhm. bu xawee dure en longueur rek day sonn. day sonn bu xawee durer en longueur. du nekk ci avantage am. parce que boo xoolee li ko perteloo contre Tafatine. li mu durer en longueur la. Mm-hmm. moo ko perteloo contre Tafatine. Mm-hmm. ndax dafa da ëmm dafa mës a xam lenn. Mm-hmm. boo attaqué day continuer parce que bu téyee moom tamit du bàyyi. loolu jikkoom la. bu téyee du bàyyi. Sa Thiès nag li may faral di wax ak sama grand bi njabootu les moom dañu am benn jikko mm-hmm. bu at bi sifflé ñu sa kaw mm-hmm. ak loo mën a indi mm-hmm. te boo xoolee li ko perte loo contre Malick Niang mooy coup bi mu jël la parce que jàppul woon ni Malick Niang dina dina dina dina dóor te nga xool Malick Niang aussi li muy indi moom ci làmb mooy am na déjà benn force de frappe boo xam ne ak cible bu la dóoree de par force da nga ko jël maa ngi gis ngay la nga si mën a ëmb toujours combat day métti. day métti toujours day mel ni toujours xale la nekk. xoolal. xam nga xam nga. Mara ñëwaatal Mara ñëwaatal. gis nga gis nga ak Tefane mu toll fin bi la. cent quarante kilos deux mètres. Mhm. nga dóor ko mu kaw dëbbu. Mhm. dem eggali dem bu koy suul. yàlla def forum daanu. muy jàmbar moom it ak rallongeam. mais ëmb der la quoi. der la daanu na mais dafa am ndam ci combat bi. parce que ni Tafa toll moo tax xeex bi ni ñu ko joxoon Tafa. waaw jël bëri bi jox ko Eumeu Sène. Mhm. fii fii ñu ngi fii ñu ngi jàppante baaraam. ñoo ngi léewtoo. waaw te indi ay baaraam. waaw Tafa nag bi ne waroon appel gauche gauche rek gàppal gauche kese moo doon combat xam xam laaw yi muy dóor gëdd ba pare dóor laaw te ay avant bara te laaw du romb ëmm loxo yi macha allah yàlla mais yaa ngi maa ngi déglu bu baax te pourtant avant combat bi ëmm maa wax sama gars yi wóor na sëñ Tuubaa Mbàkke man leen ëmmal seen du seen ci combat wul déedéet parce que ay temps dañuy gis ñu naan poids lourd da nga koy comme Moustapha Guèye Zallo déplacement da lay fermé mhm. mhm. mais da ngay la ak fu la fay de mhm. daan la mais ba léegi mu ngi dafa dina defal lii Sa dina ko def kon Sa ah, mu def a nga uh-huh. di nga taxaw du a xeex fausse garde que uh-huh. song bi tamit dafa sori uh-huh. mu dem fekk fa dara mu suruxal ko mbar ko wéeru ko mu jaaxal mais bu ñu amee tamit Sa rëg-rëg Ah, euh, bu ñu amee sa El Amin. lan ngay si Sa Thiès Eumeu le cinq mai. waaw bon spécialiste si yaakaar naa ne analyse bu pertinente bi ñu fi def moom ah, ah. <laughs> doy na waar mais comme ni nga ko waxee rek c'est un choc de de génération mm-hmm. parce que Sa Thiès donc moo moo gën a féete xale Eumeu Sène mais bu ko respecté wul Eumeu seen daan ko dina am surprise ah waaw parce que Eumeu seen ku xool euh, parcours am donc mm-hmm. comme ni ko Ousa waxee il a eu à faire des yoo xam ne ay combats yu riche la mm-hmm. donc ay combats yu mag la mais chaque fois bu daanee rek day nekk benn surprise parce que daf dafay daan avec la manière. Mm-hmm. Mm-hmm. donc Sa pour man daf ko war a jox cër ko malgré que magee ko at yu bëri. Mm-hmm. mais bu ko respecté wul mun na surprise parce que hygiène de vie bi nekk ci Eumeu nekkul ci moromam yu bëri. est-ce que am na yu bëri ba léegi sax. parce que dafa am hygiène mu ngi sàmm boppam. donc il faut que Sa Thiès ko bu bëri quoi. vivement le 5 mai Eumeu Sène seen face to face samedi la en euh, sur maintenant bu ñu jógee loolu dañuy dem record record moom vraiment dañuy jox parole ki nga xam ne moom mooy Ndeye mu nekk euh, sortie bu triste sax mhm. ah mu ne Ndeye la tête de Papa booy Djiné nee na mon souhait c'est que mon mari moom daal bu sañoon jëkkëram Papa Boy Djiné day bàyyi lamb loolu la Ndeye waaw ah, loolu sunu xarit la grande danseuse wax bëgg-bëggam la mhm. te aussi c'est légitime par rapport ak tey li ñu nekk di traversé nii c'est mhm. difficile métti na lool mais nag li may à chaque fois rek ku dul moom lu la may da nga koy jël. Mm-hmm. Mm-hmm. te tey bu xoolee ci Eumeu Sène mi doon waxtaanee fii léegi nii tey ci carrière am tey ci VIP su ma moom rek moo ci am huit défaite. Mm-hmm. tey Boy Sèye tegloo na fi ay dynamique défaite défaite défaite défaite ba su ma jumal bi mu daan xaw ma. kan la door a voyage sax dem relancer waat carrière am daan Tidiane Faye ah, daan Tidiane Faye su ma jumal door a dem. daan jën kay ah, usa ngi nii depuis ñaata ak bëriwul. Ah, te a chaque fois mu xëy dem entraînement il est assidu te am na mental de fer mental d'acier boobu noonu. papa boo jëlee aussi am na mental boobu noonu. Mhm. parce que vraiment chaque fois dañuy gis ne ba démb gis na ko open man képp ku ma xam xam ne man bëgguma lu nooy suma live man nay métti rek ful ak fayda jom dem ñibbi dafa lu ma tàmbal te sama bët bi daa am fu ma ko teg. soxla ma wax ju bëri dama si bëgg jëf ju bëri. Mhm. waaw. sakkanal say batterie man du ma ko ñuy appal ay temps man du ma naan ay une minute ak deux minutes yaakaar naa ne yow sunu combat bar bi siflet dañuy daje parce que ni ma gisee ngay wax nii doo dellu ginnaaw. non loolu moom bu am jàmbaar. loo ci loo ci hésité wala du ma la arrière mi. moom wax signature bu arbitre sifflé def naa ko 30 secondes nga wax. bu la neexee ngeen xaar. nii dama koy bëri ak yow. xam lu ma bëgg dama bëgg nga ne ma dama lay woo digg ñàngatang mooy nga yokku gaz bi man si laa gaz soo wóor boo yokkul gaz bi mu la barki Seydina Mohamed sa taal yokkal ma yor rek xew sa dama